ومع الأبرار نعسير liman kaa حسن ونسن وهو نعم الستور كسوري كتاب déggee si. danga ko bàyyi xel lool. da nga ko bàyyi xel lool. ñi nga xam ne ku yaakaar sëñ Touba. ñi nga xam ne ku yaakaar sëriñ Touba. bu déggee Mbàkke. bu déggee Mbàkke. yaakaaram jëpp nekk ca. yaakaaram jëpp nekk ca. noonu la demee. noonu lay demee. sëñ Modou Mbàkke si mii. sëriñ Modou Mbàkke si mii. moom la sëriñ Touba Cheikh Sidiel Mokhtar. mu Touba Cheikh Sidiel jox ndigal jox ndigal. ci kàddug Cheikh Mouhamadul Bachir. ci kàddug Cheikh Mouhamadul Bachir. mi nga xam ne mooy porte parole yoonu murit. mi nga xam ne mooy porte parole yoonu murit. mu denk liggéey bii. mu dénk liggéey bii nag. ku ñuy wax Serigne Abdou Lahad Mbacke. ku ñuy wax Serigne Abdou Lahad Mbacke. moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. Serigne Sidi Muxtaar wax ne. mu ne Serigne di Muxtaar nag wax ne. keroog bi mu toogee di Serigne Touba. keroog ba mu toogee di Serigne Touba. déclaration ba mu njëkk a def. déclaration ba nga xam ne moom la njëkk a def. dafa wax ne. dafa wax ne. bëggatumaa dégg. bëggatumay dégg. kër gii tiwaawoon la. kër gii tiwaawoon la. wala gee Touba la. wala gee Touba la. wala gee ñaseen la. wala gële ñaseen la. wala gee laayeen la. wala gee laayeen la. kërug jullit rek laa bëgg a dégg bëgg di dégg. ndax ñëpp. ndax ñëpp. ñoo bokk lépp. ñoo bokk lépp. kii fi toog. mu ne kii nga xam ne moo fi toog. tey jii. tey jii. bu Serigne Abdou Aziz doon ñëw. bu Serigne Abdou Aziz doon ñëw. wala Serigne Maodo di ñëw. wala Maodo di ñëw. kum ci man di doon. képp kum ci man di doon rek. soo accès. soo accès. boo ko joxee ñaari loxo. boo ko joxee ñaari loxo. ñaari loxo la koy ñaari loxo la koy jox. ndax ñoo bokk menn maam. ndax ñoo bokk menn maam. kii féete sëñ Touba. kii féete ak sëriñ Touba. ñee féete ak Maodo. ñee féete ak Maodo. Maodo doon woote lislaam. Maodo doon woote lislaam. sëñ Touba doon woote lislaam. Serigne Touba doon woote lislaam. ñoom ñaar ñëpp. mu ne ñoom ñaar ñëpp. ñu doon bay ci toolub yàlla bi. ñu doon bay ci toolub yàlla bi. ba yàlla gërëm leen. ba yàlla gërëm leen. seenu njaboot rek ñoo fi des. njaboot dong ñoo fi des. sëñ Sidi Mokhtar nag ne. mu ne Serigne Sidi Mokhtar nag ne. damaa bëgg. nga jóg yow. nga jóg yow. wëral ma réew mi. wëral ma réew mi. foofi dem. fépp foofa dem. nga xam ne. nga xam ne. sama loxo nga yor. sama loxo nga yore. ka fa nekk. ka fa nekk. nekkal fa lislaam nekkal fa lislaam ba. nga joxal ma ko loxo. nga joxal ma ko loxo. ne ko maa ngi feddali wëlëre bi. ne ko maa ngi feddali wëlëre bi. tey jokk buumug lislaam bi. tey jokk bi. ni ko suñ borom waxe ni ko suñ borom waxee. waxtasimoo bi abdillahi. waxtasimoo bi abdillahi. jamian. jamian. wala tafarraqo wala tafarraxoo mu ne wala tafarraxoo iftiraax iftiraax mooy ak xàjjalikoo mooy ak xàjjalikoo bu nartoon a am bu nartoon a am yàlla du ko tudd yàlla du ko tudd waaye ñi mu yónni ñëpp wante ñi mu yónni ñëpp tàqalikoo googu di am tàqalikoo googu di am boolewaat leen waat leen moo tax yàlla yónni leen moo tax yàlla yónni leen moo tax Serigne Touba wax ne moo tax Serigne Touba wax ne bu bu leen noonu. bu leen noonoo. gén gépp gémmiñ. gépp gémmiñ. goo xam ne. goo xam ne. laa ilaha illallah. laa ilaha illallah. ma ngay génn ci ma ngay génn ci moom. kooku bu leen ko defum noonu kooku bu leen ko defum noonu. loolu moo tax. mu ne loolu li moo tax. sëñ Modou Mbacke si muy jóg sëñ Modou Mbacke si muy jóg. yow nag mu ne yow nag. ban daataa ka agsi ba ni laata agsi fii wax nañ ñu la wax nañ ñu la wax sa taxawaay waxit sa taxawaay wax noo mel ci diine ji wax noo melit ci diine ji tund wi doy loola tund wi doy loola dëkk bi doy loola dëkk bi doy loola ci seen digganteeg seen borom ci seen digganteeg seen borom nit nag nit bu nekkee fi barab bu nekkee fi barab waa dëkk ba waa dëkk ba suñu borom daa wax ne suñu borom dafa wax ne kenn ku ne kenn ku ci ne yow ma naddu nadduhu yow ma nadduhu kullu unaasin kullu unaasin bi imaamihim bi imaamihim nit ñu ne nit ñu ne ci seen ilimaan ci seen ilimaan ci laa leen di xool ci laa leen di xool yàlla na fekk ci yàlla na fekk imaam de muy muy imaam ju mat muy imaam ju mat imaam loolu nag yow dëkk bi seereel nañ mu ne loolu yi dëkk bi seereel nañ la ko sëriñ Sidi Muxtaar di la ko nangul sëriñ Sidi di la ko nangul te di ko rafetlu te di ko rafetlu it tey ànd ak yow tey ànd ak yow. tey sàkku tey sàkku. ni mu lay ñaanale nii mu ngeen di ko ni ñaanale ngeen di ko ni ñaanale. ba jullit yëpp nekk benn ba jullit yëpp nekk benn. xol yëpp nekk benn yëpp nekk benn. ñu ànd ñu ànd. soyuwaat ci suñu borom soyuwaat ci suñu borom. ndax ñoo bokk penku. ndax ñoo ku di tiijaan. ndax képp ku di ab tiijaan. am nga doomi bàjjen. am nga doomu bàjjen. wala doomi nijaay. wala doomu nijaay. wala doomi ndey. wala doomi ndey. ju doonu murit. ju doonu murit. murit bu ne. murit bu ne. am nga doomi bàjjen. am na doomu bàjjen. wala doomi nijaay. wala doomu nijaay. ju doonu tiijaan. ju doonu tiijaan. kon genn bokk la. kon genn bokk la. genn bokk nag. mu ne genn bokk nag. kenn mënu koo xar ñaar. kenn mënu koy xar ñaar. bëgg ñu booloowaat. bëgg ñu booloowaat. def suñu bopp benn. def suñu benn. moo tax suñ Sidi Mokhtar moo tax sëñ Sidi Mokhtar jóg kon nag bi kon sëriñ bi jarta guddal jarul guddal sëriñ Sidi Mokhtar nuyu na la ci turu sëñ Modou Mbacke ci turu sëñ Modou Mbacke di la di la gën a dénkaat njaboot a dénkaat it njaboot gi. di la xamal ne. di la xamal ni. njaboot gi fi ne. njaboot gi fi ne. ginnaaw yaa ngi fi. ginnaaw yaa ngi fi. mel na ne moo ngi fi. mel na ni moo ngi fi. mel na ne itam sëñ Abdou Aziz a ngi fi. <coughs> mel na ni sëñ Abdou Aziz a ngi fi. barki démb rek. mu ne barki démb. yónni na sëriñ bii. yónni na sëriñ bii. dajale loo ko. yet dajale loo ko. mbooleem mu xaddam yi. mbooleem mu xaddam yi. ya féete woon Tamba. ya féete woon Tamba. ak Saalum. ak Saalum. ak ya ak ya ca aju. leen Touba. andi leen Touba. yendoo ak ñoom. ñoom. berndeel leen berndeel leen. ba nu àggee ca koor ga. ba nu àggee ca ga. mu jëlaat suukar su bari. mu jëlaat suukar su bari. joxaat ko sëriñ bi joxaat ko sëriñ bi. ne ko yëtal ma leen ko ma leen ko. nee leen ko nan ci woor leen ko nan ci woor. kon kooka. kon kookee. mi mu ngi jokk bokk lislaam bi. mi koy jokk ci yow nag mu ngi koy jokk ci yow nag. te bëgg ngeen teel ko te bëgg ngeen teel ko ko. jërë ngeen jëf jërë ngeen mu ne ndax bés bi kat rëy na ci nun lool mu ne gan ñii ñu am mu ne ñun de buñ matul dalalkatit ñoom mat nañ aw gan mu ne kooku loolu ñoom ñu ngi ciy kontaan lool di gërëm it dikk gi ñu ko ñi nga xam ne yàlla ci ñoom la ko jaarale te nu dëkk ak nun ci dëkk bi te yéene nu ko te sonn ci te baaxee ñu ko ba yàlla dogal jataay bii tey mu ne nu ngi jël suñu kàddu suñu nuyoo di leen ko yóbbante ci kilifa ya ngeen bàyyeekoo ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaare it bu baax bésu lislaam la bésu jullit yi la bésu mbégte la it bisu la. bisu ak bokk la. bisu Rasulullah. bisu Moustapha la sallallahu alayhi wa sallam. tabarakallah. fa tabarakallah. Cheikh Ahmad Bamba. mu ne moo ñu jàngal boppam. lu bari ci moom. ci moom. ndax li nu gis ci téere mu bind ko. mu bind nii. mu bind nii. ku fekkewut sama jamono. ku fekkewut sama jamono. xoolal li mu xoolal ci li ma bind. li ma bind ni laa mel. ni ma bind li ma bind ni laa mel. te ñu bëri lu jàng ci ñu bëri it lu ñu jàng ci li mu bind. ma kon ñun moo ñu kon mu ne moom looloo tax mu ne Serigne Bamba moo ñu jàngal boppam. ak ay téere yu bëri yu mu ay téere yu bëri yu mu bind. te yor ko. te yor ko. te ko seet. te de ko seet. di tëbbu ci moom. di tëbbu ci moom. dafa am. mu ne loolu li wax dafa am. jóge ko na fi dem New York. mu ne moom mii jóge ko na fii dem New York. màggal ak Daaru Musti. màggal ak Daaru ca Arlem. ca Arlem. ca ca kërug lislaam ga. ma dem bokk mu ne moom mii mu dem bokk ca Kaamil ya. délégation bu bàyyee ko Touba ak Daaru Musti. ak Daaru ak Njaareem. ak mu ne moom mii mu yend fa ak ñoom. mu ne ñu jàng fa ñaar fukki kaamil. mu ne sëriñ xaadim Ndiaye ma fa nekkoon. yàlla dogal fekkuñu fa sëriñ. yàlla dogal fekkuñu fa sëriñ Mourtada. man man lañ délégué mu ne moom mii lañ délégué woon. ma def fa waxtaan. mu def fa waxtaan. ci sëriñ Touba. ak alxuraan. mu ne nag. mu ne ko nag. wax nga loo xam mu ne wax nga loo xam ne li ko nit dégg bariwut. mu ne sëriñ Mourtada. fi nekkulee. bu fi nekkulee. néegam duñ ko ubbi. néegam duñu ko ubbi. waaye yow dañ la ko wante yow tey danañ la ubbil néegam Serigne Mourtala boobu nga dugg fa ñu añ fa ak yow. siyaarente it ak yow. loolu lañ def. loola lañ def. defal leen fa it teraanga ju rëy. mu ne ca déwén sa. di 2004. moom mu fekk ko Italie. ñu def fa waxtaan. ñu def fa waxtaan. ñu defal ko fa enveloppe bu am solo. mu ne Serigne Touba nag. waxam waxam. gën a bëri. la ca gën a bëri. mooy tawhid ak ak tasawuf. dama mu ne moom mii dafa gis fu mu bind ne. ñu dawee mu ne bu ñi dawee jëm ci juróom benn. dawal juróom mu ne yow na nga daw jëm ci juróom benn. yu bokkul ak jëm ñoom. ñu dawee jëm ci ngëneel. mu ne bu ñu ñu dawee jëm ci ngëneel. dawal jëm ci farata. dawal yow jëm ci farata. ndax borom farata moom moom ngëneel. ndax moom moom ngëneel. te loolu. te loolu. dëppoo na dëppoo na waxi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. yàlla ne. yàlla dafa wax ne. man saqalahu. man saqalahu. sigrihi an masalati ataytuhu fawqa maata lisaayilina mu ne sama affaire. kum tax a tardé. ak avancement la lay yóbbul. looloo tax mu ne. looloo tax mu ne. bu nit ñi dawee jëm ci ngëneel. bu nit ñi dawee yow jëm ci ngëneel. Serigne Touba jëm ci farata. Serigne moom nee na yow bu boobaa dawal nag dem ci yow ci farata. ndax borom farata moo moom ngëneel. ba ko ñaareel. mu ne bu nit ñi dawee jëm ci xam rek. Serigne Touba ne dawal jëm ci jëfe. Serigne nee na bu boobaa yow dawal jëm ci jëfe. te loolu. dëppoo na ak waxu alaaji Malick si. nee na. وإن أنكاث علما أنملا أناصلا du malkin mudaamin mu ne bu ko defee nag loolu dëppoo na ak moom ñetteel ba mu ne bu nit ñi dawee jëf ci jëf ngir jëf àddina Serigne Touba nee bu boobaa yow dawal jaw jëf jëm ci yàlla ngir yàlla mu ne bu nit ñi dawee jëm ci saayir dawal jëm yow dawal jëm ci baatin mu ne bu nit ñi dawee. jëm ci mbindeef mu ne dawal mu ne bu boobaa yow dawal yow jëm ca ka bind mbindeef. juróomeel ba mu ne juróomeel ba. mu ne bu nit ñi jógee di daw di dem ci ayib bi ñi xam ja ayib bi ñi. jëm ci sa mu ne yow bu boobaa dawal jëm ci sa ayib bi bopp. ndax it nag. booy dox sëñ Touba ne booy dox. mu ne sëñ Touba dafa wax ne booy dox. ñett ngay dajeet ñett ngay dajeet. ki nga mag ki nga mag. ak ki la mag ki la mag. ki ak ki nga maaseel. waxal ni ñëpp ma gën. mu ne da wax ne bu boobaa ñii ma tare ñoo ma gën. sëñ Touba mu ne. sëriñ Touba mu ne. ki nga mag. soo tasee ki nga mag. neel ma gën. da ngay wax ne kii a gën. tax. ñu ne lu tax. nga ne man maa ko njëkk ci lu naqadi mu ne boobaa da wax ne maako ko njëkk ci lu naqadi yàlla. soo dajee ki la boo dajee ki mag. ne kii ma da ngay wax ni kii ma gën. ñu ne lu tax ñu lu tax. mu ne moo njëkk ci jaamu yàlla. ñu nga ne tegal ko ca ne moo ma njëkk ci jaamu yàlla. boo dajee ki nga maaseel. boo dajee ki da ngay wax ne kii ma gën. ñu ne lu tax. mu ne damaa xam sama ayib. te moom xaw ma ayibam Sëriñ Touba nii. Sëriñ kër gii ne. mu ne kër gii ñu ne. muy kër ak àddina muy kër ak àddina. Daaru Muróorin la Daaru Muróorin la tudd. kër ak traversé kër ak traversé la rek. fee ñu jëm Daaru Xaraarin Daaru Xaraarin. mooy kër ak teerookaay. man kaana Muróoruhoo bil sunnati bil sunnati wal fardi wal mando baati musaa baati kaana xaraaroo ilal janna wa man kaana murooroo bil kufri wal lifaaxi wal mando baati musaa baati kaana xaraaroo ilal naari mu ne Serigne Touba ne kër gii kër ak traversé la fee moo ñuy dem mooy kër teeru gi mu bu fekkee ne da fii escalier yi nga war. yi nga war. di sunna di sunna. ak farata ak farata. ak ndigali yàlla ak ndigali yàlla. santaane yàlla ak santaane yàlla. fa ngay teeri mooy aljanna mooy aljanna. mu ne bu fekkee ne escalier ba. kufru naafeq ak mandoobaat musaabaat kaara xaraaroo ila naare mu ne loolu sëñ Tuubaa ko wax mu ne ñett booy wéttalu mu ne booy wéttalu wéttalikool yàlla booy xaritoo booy xaritoo xaritool jëf booy booy booy lu ngeen lu tax. mu ne lan moo tax. mu ne manta annasa. mu ne manta asana. manta annasa. ma anta annasa. binaasi binaasi. ajaboo naasu an rabbi naasi. wa manta asana. bi rabbi naasi. aw naaw laahu ani naasi. Serigne Touba ne boo wétalikoo. boo wétalikoo nit ñi. boo wétalikoo nit ñi. ñu dox sa digganteeg yàlla. ñu dox sa digganteeg yàlla. boo wétalikoo yàlla. boo yàlla. mu jox la mu jox la. lool doo soxla nit ñi. mooy xarit nag. mu ne bu fekkee ne xarit. xaritoo sa jëf. na nga xaritoo sa jëf. lu tax lan moo tax. moom dong ngay àndat. dugg bàmmeel jëf rek ngay àndat. dugg bàmmeel kon wéttalikool yàlla. xaritool sa jëf. dundalal sa bàmmeel. mu ne loolu sëñ Bamba ko wax. mu wax ni mu waxit ne. awaamiru awaamirullaahi. awaamirullaahi. mafaatihul janna. mafaatihul janna. caabi ajana. caabi ajana. boo ko bëggee mu ne ci sa loxo. jëfal santaane yàlla yi jëfal santaane yàlla yi. caabi jàng ci loxo. bu boobaa bu boobaa. direct. boo nee direct da ngay waaxu rek dugg. mafaatihul janna mafaatihul janna. awaamirulaahi mafaatihu naari. ma waa fi ma taa ko manaahilaahi mu ne képp koo xam ne kii. la yàlla tere ca nga ne. guddeeg bëccëg. guddeeg bëccëg. yaa ngi yor caabi safara. yaa ngi yor caabi safara. koo xam nag ni. koo xam nag ni. santaane yàlla. santaane yàlla. ca nga ne. yaa ngi yor caabi ajana. mu ngi ca sa loxo. loolu la Serigne Bamba wax. mu waxaat ni. su fekkee woote nga. mu ne bu fekkee ne yow woote kat nga. nga oote ba nit ñi ñëw. nga oote ba nit ñi ñëw. mu tataay jaar naas ilayka. tawajja tawajja maahum ila rabbi naas boo wootee ba nit ñi ñëw. àndal ak ñoom dem ci ki moom ñi. dem ci ki moom nit ñi. te ba leen recevoir. ndax liñ bëgg mënoo ko yàllaa ko man jox leen jox leen yàlla. jox leen yàlla. waaw man man man isat ma tataay jaar naas. ma tataay jaar naas ilayka. tawajja maahum ila rabbi naasi. loolu Serigne Touba wax Serigne Touba ko wax. mu ne waaw. waaw ma xam ngeen laa ilaha illallah. mu ne moom la xam ngeen laa ilaha illallah muhammad rasulullah. dañ koy wax rek de. dañ koy wax de. waaye xamu leen ko de. wante xamu leen ko. Serigne Touba mu ne mooy wax. mu ne xamu leen laa ilaha illallah. ñu ne déedéet ñu ne déedéet. mu ne man abada. man abada. xayrallaahi fi tatahlamu annahu laa ilaha illallah. wa man abada laaha bi xayri. sunnati Muhammad sa tolla allah Muhammadan rasulillahi allahumma ijhal axira kalaami bi laa ilaha illallah Muhammad rasulullah Serigne Touba ko wax mu ne mu ne. maanaam laa ilaha illallah. la firi. la firi mu ne xamu leen ko. mu ne xamu leen ko. mu ne koo xam ne jaamu woo yàlla. mu ne képp koo xam ne jaamu woo yàlla. di xam ne laa ilaha da nga xam ne yàllaay kenn. mu ne bu boobaa da xam ne yàllaay kenn. ku jaamu yàlla. ku jaamu yàlla. te jaarale ko ci Muhammad. di nga mës a xam ne. rasulullahi. mooy mooy yonent yàlla mooy yonent yàlla. kon yàlla. man Serigne Touba man Serigne Touba. ak ñi ma am ak ñi ma am. ak ñi ma àndal defal sunu mujjug wax ëllëg muy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu ne loolu la digle loolu la santaane loolu la bëgg loolu la bind mu ne moom mii papaam muy 14 mu ne moom mu jóge fi dem njaareem dem ci ba suba teel mu ne suba teel li gën a bëri ci lim daan sol. mu ne li gën a bëri ci lim daan sol. mooy lu weex mooy lu weex. lu gën a bëri ci mbubu yi mu daan sol. mu gën a bëri ci mbubu yi mu daan sol. mooy forog mooy forog. dina tañ dana tañ laayu. kurus gaa ngi ci loxo yi. loxo yi. mu toog mu ne mu toog. lal morso bu weex lal morso teg ci kaamil bi muy jàng teg ci kaamil bi muy jàng. mu ne mu ñëw toog siyaare si ko. bi mu mu ne ba mu toogee. benn góor. benn góor. andi doomam. andi doomam. ne ko sëñ bi kii day. damaa foog ne. damaa foog ne. yàlla da koo boolewut ci yëf yi. yàlla da koo boolewut ci yëf yi. jox naa ko juróomi sëriñ. jox naa ko juróomi sëriñ. ñu dalal ko alxuraan. ñu dalal ko alxuraan. mu am fa ay at. mu am fa ay at. ma man da mokkal bisimilah. man da mokkal bisimilahi ma jox la ko nag. mu ne ko ma jox la ko nag man. wàccee la ko. wàccee la ko. yaa xam nooy def ak moom. sëriñ bi ne loxoom bu tedd mu ne mu yëkkati loxoom bu tedd bi teg ko ci boppam xale bi teg ko ci boppu xale bi ne ko neel mu ne bismillaahi mu ne rahmaani mu ne ba faatee jeex mu teggi loxoom xale ba tari faatee mu ne loolu papa moom mii moo ko ko wax ne ko Serigne Touba def na loolu kon fa tubaarakallah ah, ñu jéem a yemandi foofu <laughs> mu ne ñu jéem yemandi foofu xam na ne mu ne moom mën nay fanaan ci waxi sëñ Touba. wante ñu yemale foofu. xam ngeen xam ne daal bég nañ. mu ne ngeen loolu yëpp ngeen xam ne bég na. kontaan na kontaan na. ngeen ñaanal leen. tànk yii yal nañ leen ko fay ci. ca Touba Mbacké. yal nañ leen ko fay foofa. mu ne tey bu bëgg doon romb bëgg nga xam ne ñoom romb nañ ko ñoom mu ne moog njabootam ak mbooleem taalibe yi ak mbooleem xarit yi ca suba ba léegi ñu ngi fii yërëm nañ leen ci coono bi ak ak bi moo tax mu ne moo tax ñu yemale wax ji fii. ndax xayru kàllaami. maa xal mu ne doomu donte amul dal la waaye maa xal <laughs>